dama ci jublu mooy wane ne mankat kon bokk naa ci ñi nga xam ne ñi nga am ci laa bokk muy taalibe yi kon nan jàpp ne ñun ñëpp ay taalibe lañ sëriñ bi benn la bu dee ci yoonu murit muy sëriñ Touba waaw dafay nekk ku njabootam nag sëriñ bi lu ne daj na ko ci euh, alxuraan ak sunna ci jaamu yàlla lu ne daj na ko euh, liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nekk résistant ci euh, temps colonial lu ne daj na ko dëkkam bi ñu xañ ko ko wax nañ ko boo jàngee assiru ma al abraari xiina assiru da nga xam li mu daj nga xam ne génne nañ ko këram à fleur de l'âge ci waxtu woo xam ne wax dëgg yàlla génn xañ ko njabootam xañ ko réewam yàggal ko ci àll bi am at trente nangam année fanweeri at ak nangam ci loxo loxoy e, tubaab bi taxul mu yokkat wala mu def dara e, gën a gëm suñu borom tabaaraka wa taala ndax nee na Euh, li mu mën a ñëpp mooy lu suñu borom dogal rek neex na ko waaw alhamdulilah kooku euh, dañ ko war a roy turaas bi mu fi bàyyi ñu koy jéem a roy euh, ndax tuubaa moo ko gën a loon fépp waaye njaarim la nekk ba ne ci loxoy tubaab bi ba ne ñibbisee Touba waaw kon dëkkam boobu nga xam ne daf ko neexoon lool wax dëgg yàlla mu fonk ko trop lii sëñ Muntaxa wax tey di mm, ci wax dëgg yàlla ndax beew gi xaw naa bari Euh, ñàkk xam ngi xaw naa bari loolu yi danañ ci ñëw ci kanam tuuti waaye ñu war maal dëkkam bi war maal ko di ci seen jàpp ne Serigne Touba jógu fi mu ngi fi euh, ndax jëmm moom jëmm la waaye xalaat yi ak euh, turaas bi dafay lu am solo loo xam ne muy am am immatériel boo xam ne dafiy sax ba faw alhamdulilah loolu kon war nañ koo sàmm sàmmoonteeg moom te sàmm ko te sàmmle ko ko kon ku fi mas a jaar ci sëñ Abdou Lahad ak ñoom ñëpp kenn ku ne eh, Cheikh Mamadou Moustapha na fondation bi Cheikh Mamadou ak àggale te ni mu gën a rafete eh, kenn ku ne ci sa jamono marqué nga ko ba mel ni sëñ Touba daa roofu ci yow ni ma koy waxee kon nañ leen toppandoo ñoom xool ci ñoom roy leen waaye nag eh, na mu ko waxe woon wax jooje feeñ na tey de du caa génne mbàkke nga sant que da ngaa war a am sañ-sañ wala dangaa gën a bokk ak Serigne tubaa Serigne Touba nee na kenn ku ne la nga baaxale laa bokk ak yow lu leen nañu la loolu la mu fa bëgg a wax mooy inna akramakum inda allahi atqakum loolu la bëgg a wax waaw loolu rek la bëgg a wax ku la gën mooy ku gën a ragal yàlla kon ciw sant gëneel amu fa waaw li euh, ma koy waxee loolu euh, sëñ bi dafa liggéey sëñ Tuubaa liggéey boo xam ne rek euh, li may wax ne ndollan la ndollan mu ngi mel ne dem nga dem tool ba pare ñu jox la sa ndollan waaw ndollan la loo xam ne sëñ bi da ko jox ba tax ki sant Mbàkke ko ne dañ ko war maal ngir santu Sëriñ Tuubaa bi waaye nag war ma jooju yow ma nga xam ne yaa cay bénéficié yaa tax ñuy maanaam feeñal nañ jaare ko ci yow war maal sëñ Tuubaa yaa war a ci lam bëggoon nga jaar ca teg tànk lam bañoon nga di ko moytu waaye nag leneen loo def lu dul loolu rek yaa ngi koy yablu mi ngi mel ni sëñ bi daa tabax ba noppi nga yor sa martu di toj waxtu wu ne te loolu gis nañ ne law na ci wàllu gu ne euh, mag ña lañ ñu yare woon jamono sax nee nañu soppiku na waaye jamono soppiku nit ñi ñoo soppiku doxalii ni doomu aadama yi ñoo soppiku la fi woon mi ngi fi ba léegi la baaxoon ma ngay baax la bonoon ma ngay bon ba léegi kon nag mm, nit a soppiku waaye jamono moom fa nekkoon fa la ne waaw kon nañu euh, topp ci ndigal Serigne Touba yooyu loolu la sëñ euh, Muntaxa bëgg a wax te wax na ko bu wér sëñ Blaat jaaroon na ci digg ba tere ko bu baax a baax a baax waxul sax ne seen bakkan laa ci aj waaye la ci ajoon waaw kenn ku ne xamoon na fam akuk mbaaxam akuk bëgg sëñ Tubaam wax dëgg yàlla nag euh, sama dëkk bi lii laa fi bëgg yow yaa fekk manding ma nga gor ko def ko tata tatay lislaam wërale kook ay ay pôle boo xoolee Ndindi Tindodi nga xool euh, dëkk yi ko wër mu nekk cercle concentrique ñaari cercle nga demaat ba foofu nga xool Daaru Nayim Kayal euh, xool xool euh, Daaru Salaam dal moom Taïf et cetera nga xool Daaru Musti mu wërale waat kook yeneen cercle pour tata nga xam ne bu doon ci temps yu guerre la noonu lañ koy defee ay mur lañ koy def waaye moom mu def ko miir yi sunu borom nga xam ne dañ fay jaamu suñu borom tabaraka wa taala loolu nga fexe ba bëtt ñag bi wax dëgg yàlla dugg fa di def lu neexul suñu borom loola yaakaar naa ne ko def ku ne yaa ngi yaa ngi la ngay def yaa ngi tooñ sëñ Tuuba euh, moo xam nga yor santam moo xam nga yor bañ santam ñoo ci yem képp waaw sëñ bi daal ci moom mooy li mu yor day jaay mooy jaamu yàlla ak topp yàlla ak liggéey waaw jàppalante ak euh, wóoluwante ci suñu biir yéeneente jàmm